asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi nuyuwaat nañ leen fii ci Touba Mbacké di leen wax dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel grand magal de Touba 2019 di atum 1441 xibaar yi tey dañ koy euh, dooreek visite président Macky Sall bi nga xam ne amal na ko fii ci Touba ni nga xam ne noonu la koy defee at mu jot ren nag euh, bi mu fi agsee ci euh, vendredi bi dafa jubali directement ci euh, complexe Cheikh Ahmadoul Khadim di université bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir moom lay liggéey fii ci Touba président Macky Sall visité ko ànd ak euh, ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir ak mboolem kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bu nu mel ginnaaw buñ ko leeralee liggéey bi rafetlu na ko ki nga xam ne moo di Serigne Ahmadou Badawi mi nga xam ne moo jiite lépp lu jëm ci wàllum njàng mi moom am na téere boo xam ne jébal na ko président la République ñu xaatim ci li nga xam ne moo jëm ci université bi ñu ànd teelu cadre du président de la république ginnaaw bi mu nemmee ko université ba noppi. ndax daanaka si juróom-benn weer bâtiment yu toll nii génn université bu toll nii ci li muy jar euh, doy na kéemaan wax dëgg yàlla euh, ñu ngi sant sëriñ bu baax a baax sant taalibe yi nga xam ne seen taxawaay rafet na ndax lii ngeen fi wax. ay volontaire ñëw jël ay batiment yu toll ci juróom-benn milliard ne dañ ko ci dugal ci seen alalu bopp loolu tam lu jar a roy la loolu mooy liggéeyal sa réew liggéeyal sa diine liggéeyal sëriñ ñoom it ma sant leen bu baax sant entrepreneur yi sant ingénieurs yi mais aussi sant la sëñ Ahmadou Badiou bi nga xam ne sëñ bi teg na loxo bi ci wàllu pédagogie université bi ak concept bi nga xam ne noonu ngeen fas yéene daara ju mag ji di ko doxee surtout nag li ci gën a kéemaane tam mooy tàmbale ko ci ñi gën a ndaw ba fu njàng xam-xam di toll loolu dafa am solo ak ni ngeen ko xaajee ay pàcc vraiment jar na jar jàppale bu baax a baax wàllu métier itam maa ngi doon wax ministre de l'intérieur ak Dame Dame Diop ministre bi nga xam ne moo yor wàllu xara liggéey formation professionnelle dañoo dama doon laaj sëriñ bi ndax damay def ci département bu ne benn daara bu mag ci wàllu métier boo xam ne gën ngaa néew milliard ak lu topp dana ci dem pour fu ñu jàngale gone yi métier loolu tombe na ak lii ma gis fi ci wàllu métier yi kon loolu it daga Mbàkke ak Touba waroon nañ ci am mën nañ ko ci ndigalu sëriñ bi def fii su ko defee loolu dana mën nekk luy tàmbali tam ci teel en tout cas ñu ngi sant bu baax xam naa bu ñu yeggee sëriñ bi dama mottali cant googu mais daal li ma fi gis moom dëgg-dëgg dal na sama xel te dafa méngoo it ak li may santaane ci nguur gi muy liggéey bu gaaw waaye bu bu sell. mu nekkoon euh, nemmeeku gi nga xam ne président Macky sàll amal na ko ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi nekk fii ci Touba ci bi mu ñëwee ci euh, wàccaayu màggal gi ba léegi ci visit président boobu sax la ñuy des ndax ginnaaw euh, complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi ñëw na fii ci résidence Khadim Rasoul waajee fii ngir dem euh, julli ji a juma fii ci grande mosquée bu Touba mu ànd ak euh, ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir ak kilifa yu bëree bëri ñu teewe julli gi waaye julli goo xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides moom it teewee na julli gi waaye ginnaaw bi moom euh, président de la république ziar na Serigne Mountakha Mbacké Bachir feddali kóllëre ak moom yeesalaat li nga xam ne moo di ak taalibeem ci nag biñ demee ba tàkkusaan ci lañ fi amal cérémonie boo xamante nii ci euh, salle bi nekkee ci euh, résidence Khadim Rasoul di waxtaan woo xam ne président de la république yëkkati na fa ay kàddu mu jëm ci euh, taxawaay bi nga xam ne nguuru Sénégal dana ko am fii ci Touba Mbacké mu jëm ci assainissement bi ndax ko ne xam ne màggalu Touba at yi dana dugg ci nawet bi waaye it ak ndoxum Touba loolee lépp président Macky Sall àdduna ci ci kanamu xalif général des Mourides ñu ànd teewlu ko. bi taxawaay bi nga xam ne war na ko taxaw ci sa ba lépp lu yitteel dëkk bi rawatina li jëm ci wàllu màggal gi ñu mën ci taxaw niñ ci war a taxawee la cay jiitu nag mooy wàllu ndox ak assainissement ndax bu ñu amee seetlu waxtu wi déwén bu ñu fi yàlla bàyyee màggal gi ak déwén jéeg ci biir nawet lay tombe loolu nag dafa waaj dafa dafa laaj ñu am waajal ba bëgg naa bu ñu génnee ci màggal gi ñu saytuwaat mbiru ndoxu Touba ak réseau yi fi nekk ba xool dëgg-dëgg ak tolluwaayu dëkk bi lan mooy solution yi gën a yaatu te nekk luy gën a méngoo ak bëgg-bëggu dëkk bi waaye ak yitte askan wi nekk fii ci Touba. ginnaaw loolu it mbirum courant dafay nekk lu soxal dëkk bi ndax yaatuwaay bi ak tolluwaay bi loolu it gouvernement bi ak Senelec ak ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi liggéey ci wàll woowu daañ ci taxaw taxawaay yu war ba lépp mën a yomb. ba léegi ci waxtaan woowu nga xam ne ñu ngi ko doon amal fii ci résidence Khadim Rasoul ci teewaayu. président de la république euh, Macky Sall ci ngan gi nga xam ne moom lay amal fii ci Touba Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kaddu yoonu Mouride moom yëkkati na fa kaddu yi ci turu Serigne Mountakha Mbacké Bachir santat président Macky Sall ci taxawaayam waaye yitte gi nga xam ne saa su ne mu koy am ci Touba Mbacké ba tax bu ñuy waaj màggal gi rek mu ñëw fi waaye it lépp loo xam ne jëm na ci dëkk bu sell bi di Touba ak taxawaayu président Macky Sall ànd teewlu kaddu yi Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir waaye nee na la xamee ba tey mu xam la ci yar xam la ci teggin xam la ci ak baax xam la ci ci fonk ko it di ko teral ngi jëm Sëriñ Tuubaa na loolee nag yàlla da ko def sa digg moom do def ak cofeet ci sa digg moom cofeet goo xam ne xam na fu muy tàmbali waaye xamut fu muy yem ba yàlla def nag yaakaar jooju nga amoon ci moom bi mu demee ba tooge jotaayu Sëriñ Tuubaa bi yaakaar ji gën a dolli ko nee na loolu nag moom bi fi ay kilifaam nekkee noonu la ko yàlla bi ne suñu def suñu te bàyyi lépp dafa tënkoon ci seen kilifteef bi mu demee ba ne fi nag wóotu leen fi di fi jëmbi Sëriñ Tuubaa loolaa war nag yaakaar jooju nga am ci moom moom léppam Sëriñ la moo taxoon nam la ko waxe woon mu jor sa mbir dénk ko Sëriñ nee na nag fi mu toll nii la ko jëkke dafa teewlu woon sëriñ bi waaye léegi nag tàmbali na di la ñaanal ñaan gi mooy nga am ndam ci liggéey bi ba mboolem li nga xam ne yéene nga ko ci Sénégal nee na nga am ko ni nga ko bëgg ni ko sa njort ci biir loolu itam nee na yéene jëm la yéene lépp loo xam ne gis nga mu digal la ko rek lam ci jublu mooy nga am muccuk àdduna ak muccuk àllaaxira ndax moom kat yàlla def na amul benn bëgg-bëgg ci àdduna lu mooy liggéeyal Sëriñ ndax xam na ne li la war ci dëkk bi yaa ngi ci def ba def ci loo mënut firnde yi bari na am nga yooyu ci junj waaye liñ ci tudd moo ko ba léegi ci visitu président Macky Sall bi ku ne Touba ne bernde ba tax na waajaloon nañ fi ay bernde yu yaato yaatu yoo xam ne ki nga xam ne moo di Soxna Bali Muntaxa ak waa Daara Hizbut Tarqiyyah ñoom ñëpp waajal nañ ay bernde yaatu yoo xam ne ñëw nañ jébbal ko ki nga xam ne moo di président de la République Macky Sall doon ko woon rek ne dëkk bu sell bi di Touba gan gu fi ñëw daañu la berndeel. bernde gu yaatu loolu nag juróom na mbégte ci président Macky Sall bam uh, gaaral ko sax ki nga xam ne moo di xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir loolu di pàcc bi nga xam ne moom lañ ubbi woon uh, mu jëm ci visite président Macky fi fii ci Touba ba léegi xibaar yi ñu wéyal ko ci uh, ziar bi nga xam ne waa daayira Rawdu Rayahin bi nga xam ne Serigne Ahmadou Badawi moom moo ko jiite ñu demoon nag ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir doon ko gaaral liggéey bu solo boo xam ne def nañ ko ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi nga xam ne moo nekk ci Touba ndax ki nga xam ne moom moo di euh, Serigne Ahmadou Badoy moom nañ jékk lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum pédagogie maanaam njàng mi ba tax na def nañ ci ab gëstu bu yaatu lépp loo xam ne rek euh, ñeel na njàngum université bi xaatim nañ ko ci benn téere ñëw jébbal ko Serigne Mountakha Mbacké Bachir ñoo ànd teewlu kàddu yi Serigne Ahmadou Badoy yi nga xam ne yëkkati na ko ci kanamu Serigne bi kaddu yi Serigne Ahmadou Badawi Mbacke yooyu la ñuy tëjee xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel màggal Touba ren gi dëppoog 1441 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoog atum 2019 ñuy santaat bu baax mbokki téléspectateurs yi ñu doon bàyyi xel dig leen daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar yoo xam ne dana bàyyeekoo fi ci Touba Mbacke wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf